رسول إله العالمين تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى خديمك نادى يا رسول فلا أرى فقيرا إلى غير الإله تعالى السلام عليكم بنانيون ñi ngi leen di nuyu di leen tatagal di leen yëgal suñu xew-xew bi nga xam ne moom lañ dëgmal muy gàmmu Kossy ci njiitalal Baye Mamoun Ibrahim léegi ñi ngi woon ak kuy jullit ak foo ne ci réew mi ak ci bitim réew ñëpp soxla nañ seen teewaay soxla nañu it seen ndimbal ñi ngi xoo ñëpp ñi ngi yaakaar ne ñëpp it dana ñëw rawati dëkk yi nga xam ne moo ñu wër ñoo ngi ñëpp ñoo ngi xoo suñ kilifa yi nga xam ne ñoo ñu féetee ci wàllu aada di dalee ca président ba ci maire bi nga xam ne moom lañ dëkkat ñi ngi xoo ñëpp ñi ngi leen di tàllal loxo it ci mbiram dëkk bi ci lépp loo xam ne lu war ci dëkk bi la ak luñ soxla ci dëkk bi ñi ngi leen ci tàllal loxo ci lépp ci waruwaay ci dëkkaay ci yoon ci suñ jumaa ji ci hôpital ci mboo ak forage ak mboolem loo xam ne dëkk bi soxla nañ ko tey moom mu mën a jaar ci seen loxo ñëw ci dëkk bi ñoo leen ci tàllal loxo ñoo leen ci yaakaar ñoo leen ci ñaan di leen ci ñaanal yàlla it yàlla man loo leen ko bañ mën ñu ko defal ci njiital nag suñu sëriñ Baay Maamun Ibrahim boo gisee ma wax loolu mooy gàmmu gi depuis ñaari at ba léegi gàmmuwuñ ren mooy ñetteel bi ndax affaire yi feebar bi woon léegi nag gàmm gi dëgmal nañ ko sëriñ bi jàpp na ko yëgal na ko mboolem kum ko war a yëgal ñuy ñoo ngi koy yëgal képp kuñ ko war a yëgal te soxla nañ ñëpp teewit nag ci dëkk bi ak ci biti dëkk bi ñu góorgóorlu ci teg yi lépp lu ci waay xam te man ko ci la dalee ci téeméeri junni ba ci fukki dërëm soxla nañ ko dara lañ ci xeebut xéemuñ ci dara it nag ñi ngi ñaan ci yàlla yàlla heggale ñu ca bés ba ci wér ak tal ak man jàmmal ñu jàmmal suñuy kilifa ci sëriñ ak ci aada wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. aouzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla bu baax ci avant première bi ñu bëgg a def tey pour gàmmu Kossy bi nga xam ne mu ngi ñëw si le 27 juillet incha allah mooy ñëwoon nag tey toogal fii borom dëkk en un premier temps. de que Cheikh Bitey Cheikh Modou Bitey dal ni mu kontaanee sax mënu ko exprimer mënu ko wax ndax gàmmu ko si lépp lu lu fi def rek mom lañ ko defal ndax tay mo ci bi ngi Cheikh mbébét yi sémb yi fi bàyyam sémboon ba léegi moom ci loolu lay dox taxaw nag ci dëkk bi pour que lépp lu fi war a am rek mu am fi mooy daal moom ngërmaaneem ci Baye Mamoune daal amul àpp mu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla mu suut baayam aw fan lool lool lool lool lool ëpp ko man man lool lool lool am wér lool lool lool bu mu am benn ndog benn tolof tolof bu mu ko dal loolu borom dëkk moo ko yóbbante ne kontaan na ci daje bi ñuy oote di oo nag réew mi àdduna bi fépp foo xam ne fii kaasi Kossy yi yegg na fa rek ñu ngi lay oo ci gàmmu Kossy gii. Baye rali la woon wax na dellu Kossy bi yàgg na. di woote mu jëm ci sunna international dellu Kossy pour liggéeyal bàyyi ak gàmmu Kossy gi nga xam ne moom lañu boole di ko def ci guddi gi ñu ñëw toog fii di oote di oo mbooleem waa tund wi yëpp bàyyiwuñ kenn man su ma duggee ci programme pour oote rek damay wax ne damay woo ndaw yi sama morom yi ak suñu yaay yi pour ñu dellu si ci programme bi ñu japp ko def ko da nga xamne ne na lañ ko daan defé ñu ngi leen di nuyu bes bi ñu jublu du besep Cheikh bay mamoud besep ko ci le mbay ci sa wewu tank it bim am ak tiofel gim am moy wané né domi ko ci le te fi ñu fi tok ñep domi ko si le motax bes bi won nañ ko wo ci ak gigéen si mag ak ndaw ku feebar sax bés bi won na la itteel bés boobu nag ko si ñoo ko moom waaye àddina bekk moom dama bëgg nañ yokk itti bi dama bëgg nañ yokk cofeel gi bésa koo si bii nañ ko jox bopp nañ ko teral bu teraa nga ñëwee koosee ko moom te naa ubbi buntu yëpp muy bés boobu muy si gàmm gi ñuy wax lu nekk mën naa xew lu nekk mën naa bees si gàmm gi si bés boobu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi leen di wax ne ni ngeen dégg sëriñ bi waxee ko noonu la woote bi sabab bi xam na lan la ku yem ni Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu wa arda am gan gu yem ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak saxaabaam bu mag boobu mooy Seydina Aboubacar Sadiq radiyallahu anhu ñu fekk ko fi ci dëkk bu tedd bi ci place bu tedd bi ci barab bu sel bi ci waxitu yu sel yoyu la fa xew xew fa lu reey lo xamne mën wax ne luñ taxañ la du yaatu la bés bobu la leen di sëriñ bi di wo di ko boole ak bés bi nga xam ne Cheikh Ibrahim radiallahu anhu moo ko njëkk a def fii muy gàmmu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñi ngi nuyu mboole mbokk yi fi teew ñi ngi jiital ci nuyoo boobu Cheikh Baye Mamoun mii toog ak ñun ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy siyaare comme ni ko ñëpp waxee nag. نون رك لن كي وخي نونيت أما لن يوخني إسا قال إسا قالت الحسامي فصدقوها فإن القول ما قالت الحسامي نجيت لن وخ نون رك لن بير متدي أما بس بي سرين بي قالت مملني يالا دف كوي سوغو أمال أمال يكو تي أيهتي موم أمال waaye xalaat yu bari ñi ngi ko doon xalaat am na bés day ñun dem nañ toog ak papa Seex yal na yàlla yokk leeram mu wax ne maa ngi xalaat wax naa boroom dëkk ne nañ defaat eh, beneen borno yokku dëkk ba ci sama kanam man bi mu koy wax ci sama kanam la buñ paree danaa woo doomi bàyyi ñu seet benn bés boo xam ne dañuy dem Kossy ma dogal leen fa kenn ku nekk sa pak ñu am pastéefang fi bu ñu leen ko defee danañ ko tabax loolu ba mu koy wax lam ca jublowoon mooy dëkk bi dund lu dundal dëkk bi rek moo taxoon bu wax Alaaji Abdoulaye moom it yàlla na ko yàlla yërëm waxoon na xalaat bu mel noonu ci ne danañ seet bés boo xam ne dañuy laaj mag ñi ñi nga xam ne ñoo fekkee woon démb ñu seet ban bés mooy bés boo xam ne ci la faydu bu takkoon ci kóosi ñu seet bés boobu ñu di ko jàpp di ko dundal muy dellu si mu jot waaye mu ne li ma ci xaw a jaaxal boobu kóosi amaguñ courant mu ne li ma ci xaw a jaaxal mooy bés boobu buñ ko xootee addina bi yëpp dana fi daje te loolu di ko woote ci foo xam ne courant amagu fa daal loolu nangam ak nangam kon loolu moo taxoon jombut moom joxu coon ay jéegu ci loolu kon nag bu njëkkee ba Kossy am courant yàlla indil ñu sëriñ bii muy seex Baye Mahmoud moom mu wéyal xalaatu euh, ay kilifaam muy ñaar ñooñu ma tuddoon ak ñeneen ak ñeneen kon loolu ñun duñ ci def dara lu sant ci yàlla bu baax gërëm yàlla bu baax ndax yàlla moo ñu ko cëralee Baye Mahmoud ak dikkam fii yàlla moo ñu ko cëralee comme ni ko ñi jiitu waxee bi nga xamee ne papam sanc na kër gi bam defee waxtaan ba pare daf ne yéen waa Kossy sancal si naa leen sancal si naa leen bam ko waxee yàlla def la ko soob sëriñ bii wéyal ay xalaatam walla ay bëgg-bëggam wala ay nisaram ñëw dugg ci dëkk bi kër për kër kenn ku nekk mu ndokkeel la saafaanteeg yow wan la ne la ñëw naa sancal si leen kon dëgëral na waxi papaam jooju ñi ngi sant yàlla ci loolu ñi ngi koy ndokkeel ci loolu di ndokkeel suñ bopp ni ko nit ñi waxee noonu rek noonu la tëddee ñi ngi xoo ñëpp bawuñ kenn parce que bés bu mel nii buñ ko wootee haddina bi yëpp yëpp yëpp yëpp ñoo ko moom du waa Koosi du waa Mbirina du tey ba haddina bi yëpp ñoo ko bokk kon ñi ngi sant yàlla ñi ngi gërëm di wax alhamdulillahi rabbil alamin di ñaan yàlla bés bii nii ñu ko séentoo yal na ko yàlla indi ci jàmm tam fekk ñu ci jàmm Yalla dimbali ñu nak ba bës bi réussir réussir bo xamné dana bétti ñëpp lolu yalla man nako ñing koy ñaan yalla ñu ko yalla defal ci barke alcorane barke yonent barké Cheikh barke Baye ak Bayam barke allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim la la la la la la la لا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله jëf macha allah si kër si neex na. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa kon ñu ngi leen di xoo démb ki xam na ñuy ñëw sama néeg dama wax. néeg bi bàyyi doon gàmm ma ne leen jàlla mag ñoo xoon di néeg ba gattax la woon ñax la woon 4 la fa fanaan ba bët set ci fajar boobu néeg bi fii sut bàyyi na leen sant leen yàlla yéen ñi dajeeg man ndax yéen xëpp leen xeesu leen su ngeen xëppoon ngeen di ñëw ba ma ñëwagut su ngeen xeesoon ngeen di jékki ba ma dem waaye yéen ñi dajeeg man sant leen yàlla kon ñun ñañ wax alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant ñu ngi gërëm mu ne leen nag danaa leen bégal ñun ñi fanaan ci néeg bii ba fajar jot di tagg yonant bi néeg bi feesut jamono dina ñëw ñu fees àddina bi kon alhamdulilahi ñun fekkee nañ ko te fu jant bi tiim gàmmuk bàyyang fa ñu ngi sant ñu ngi gërëm ñu ngi wax ni lii yal na ko yàlla àggale foo xam ne sax fooguñ ko foon bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum yéen mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di sant yàlla di julli si yonantu bi di julli si yonantu bi di lotu nag si wax si palaas bii di siyaare suñ sëriñ Baye Mamour Niass di nuyu kilifa yu fi teew yëpp samay papa samay ñijaay samay yaay samay mag samay rak di leen wax na lii nag lottu naa si wax ko li ñuy wax bu la sëriñ sante force nga def waaye man lii moom wax dëgg mën naa taxaw wax waaye lii moom mënuma ko kanaa kay may jéem rek ma di leen woo yéen siñ mbokki jigéen yi ma dalee ko ci suñuy yaay ma dalee ko ci samay mag ba ci samay rak képp kuy jigéen ci dëkk bii bés bii gëmal na sa bés la képp kuy yaay ci dëkk bii gëmal na bés bii sa bés la bés bii bu ko Baye Mamour sosee rek toogoon ca këram rek ñun war nañ kaa mën a doxal ba mu mat sakka bam ko dox jàppee ba pare nar koo ànd ak ñun ba mu jeex kon nañ leen jéem a góoru ñun jigéen ñi de mosuñoo des ginnaaw surtout lii nag nañ fexe ba képp kuy gan si dëkk bii nañ jéem ñun teral la ñun ñun ñun jigéen ñi fañ nekkoon nañ ko yokk waaye buñ ko wàññi. képp kuy xale muy mag muy ndaw yéen ñëpp maa ngi leen di woo ci bés bii ñu jàpp ci te xam ne ñun luñ baay Mamour suñ bopp lañ jàppal ñun yàlla dañoo andil baay daf ñoo andil baay ba ci suñuy loxo mu tegal ñu si kon nag buñ fexe ba kenn jël ko ci suñuy loxo nañ ci jàpp nañ ci mooy te bés bii muy bépp mbootaay bu ne ci dëkk bi maa ngi lay woo dimanche nag nanañ danañ bale ñoo ngi woo suñ bopp doom ndax mag mooy jiite xale waaye xale mooy liggéey bépp xalé bu nek ci dëkk nak dëgg la nak all bi bari na liggéey waye nañ sacrifice suñ bopp benn ngont benn xëy yàqu dara ci tool yi ñu jappalante ñun ñëpp dëkk bi set bu gan ñu ñëwee xam ne dëkk bii ñoo mom moom ñoo ba paré man maa ngi wo bépp jigéen bu nek ci tundu bi du ko si caameen du dingi raay du dabaan du bépp dëkk dabaan ke sele kër kanta kër jara bi yëpp ñing leen léegi man maa ngi woon ak siñ maire Aïssatou Ndiaye Tall kuy politique da nga danaa ko woo ndax mooy siñ maire maa ngi koy woo ak groupe Amazon di woo ngañ bi tey ak group Amazon na leen ñu ñëw jàpp ci bés bi jàpp ci dimanche bi jàpp ci gàmb gi ba yëpp yàlla sottal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal سيدنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عن القطب المكتوم والبرزق المحمد المعلوم مولانا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه رضي الله عن وارث سره وخليفته الخليفة المطلق شيخنا ومولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس mbokki jullit yi mbokki mbokki talibé molana Cheikh Lislaam Alxaaji Ibrahima Niass mbokki kosi mbokki Fayda tijaniya mbokki képp kuy wax ashadu an laa ilaha allah wa anna muhammadan rasulullah maa ngi lay nuyu fii ci Koosi man bawul Fayda di oté oté fàttali di oote oote boo xam ne dafay dëggal oote Mawlana Cheikh Ibrahima Niass bi nga xam ne mi ngi ko tàmbale ci ndigalu yàlla yonentu sallallahu alayhi wasallam ak Cheikh Tidiane fii ci Koosi Mawlana Cheikh Ibrahima al Alxaaji Abdoulaye Niass bi nga xam ne moom la yàlla tànn jox ko fayda tijaaniya mu waxoon fii ci Koosi ne bi zaahiri shar'i wa nuuri lmubin rabbi saalikiina bila shakkin wala riyabi ci zaahiru lu feeñ mooy sharia jëfee ko xormaal ko dund ko waaye ci leer gu bir bu bàyyeekoo ci sama borom ba nag ay kawteefi yàlla ñaar yooyu ci laay yaree sama taalibe yóbbu la ci pay yàlla bi kon Cheikh Ibrahim nitu sharia la dafa roy yonantu sallallahu alayhi wa sallam roy ay saxaabaam yi dëkkoon ak moom ba matale lépp waaye niti xaqiqa la sufiyanke yi nga xam ne xam-xamu maarifatu billah ñu ngi tàmbalee ci sayyidina Ali ibn Abi Talib bi mu ñëwee ci woon saasam ne ko xamal ma loo xam ne kenn xamu ko ma xam ci sama borom mu ne ko waxal laa ilaaha illallaah mu laa ilaaha illallaah ñëpp xam nañ ko wax ma loo xam ne maa koy jagoo mu ne ko gëmmal mu gëmm boobu la ko jës bu mu xam ne ko ndekki li ñu ut yëpp mu ci biir laa ilaaha illallaah rendez-vous bi di ñëw wala yàlla yi di jaar ba Cheikh Tidiane ñëw ne anhu faydu dana ñëw faydu bu feeñ ci Cheikh Ibrahima kon yéen taalibe yi yéen soppe yi yéen yi yéen am jàmm yi nañ leen oote ah, ah, baay ah. ci oo gi ko yontu yàlla Muhammad sa sam oo digal ko ne ko na dellu Kossy ci jamono joo xam ne sanc na Medina bay waañu ujji boromam 1967 75 la bàyyi dem ci boromam ci zahir mu ne ne ko nañ dellu Kossy kon nag dellu Kossy boobu firim zahir am na firim baatin am na firim zahir mooy dellu ko ne ko bàyyi waxee dundal ko ci dëkk waaye ki yu ni mel loolu baax na lool waaye tam dellu ci jikko yi nga xam ne nii mooy jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jikkoy xam yàlla wéetal yàlla kon nag bés baa ngoog le 27 juillet 2022 euh, euh, mu tolloog guddig ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñi ngi ñaan yàlla dogg gi ñu ci dogg ak ndigal yàlla defal ñu ci tawféet ba la ca guddi googu ak ya ko jiitu yëpp yàlla defal ñu ci tawféet ndax Baay wax na ca mbindam ne yonent sallallahu alayhi wa dikkal na ma jugee sama tool caalang ñëw fii dal sama néeg baay te nga mu ne mu daa di tëdd yontu saa sama Babacar tëdd mu bàyyi tëdd ci seen diggante mu ne def nañ fa ay fan moo leen doon bëkki néegu moo leen doon xidmaal mbégee na ci mbégte moo xam ne mbégte melul ni moom kon képp ku bëgg a bég ci àddina ak àllaaxira képp ku bëgg sa njàqare jeex képp ku bëgg sa aajo fajo ñu ngi lay oo oote boo xam ne du oote tappale du oote fenn du oote bëgg lu ñu ñu neex waaye oote bu bàyyi oote la muy fayda bi ñu sant yàlla bëgg bàyyi liggéeyal bàyyi sant bàyyi la ñu wax loolu mooy lépp bàyyi ne na man yuhibbu nii ma man yaraani ku ma bëgg gis ma yaa ngi aljanna wax na ne gañ naa ci yàlla ne kenn du ma bëgg li may ki gën a texe waaye kenn du ma bañ li may ki gën a texee de wax na tamit liggéeyal ko mu ne képp ku ma liggéeyal jot sa càkkuteef wax na ne karaama gënta rëy liggéeyal ma waaye yàlla dafa nëbb loolu ngir cër yi ëppante bés dana ñëw ku ma liggéeyalut da rëccu bu leeree ne lépp a ngi sama loxo ñaan na yàlla tamit ne daawatu rabbi an yow mahadiya kullal wara wa yahmaduna saa yi ñaan naa sama borom njub li ma yàlla jox mu daj àddina lépp macha allah foo dem ci àddina tey mbooloom bàyyi fa taalibe yaa ngi fa kon nag ñun taalibe bàyyi bàyyi dafa ne woon ne isa saara xeyru naasi surtout waraahu wa in xalla yowmul fan ma siiru bàyyidu bu gën ji mbindeef doxee ma bu taxawee ma taxaw kon maa ngi di oo jullit yi di oo surtout taalibe yi ci ragal yàlla ci bëgg bàyyi ci xidmaal ko ñu gën ko yokk waaye ci sant ko bëgg ko liggéeyal ko sant ko mooy mooy necc lam neewoon rek innal muhibba liman yuhibbu mutiyu bàyyi nag kenn mënu koo natt kenn mënu koo féetale fenn ndax nit charia yàlla waaye nit xaq dafa boole xam-xam yépp kon ñun taalibe nañ fexe tegee ci ñaari tànk baa yooyu nga xam ne mooy tànku siraatal mustaqim maa ngi nuyu ñëpp maa ngi oo nag mboolem pays bi yëpp gannaaw bu ma jëlee ndigal ci sama sëriñ sama kilifa sama papa sama soppe cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass xaadimul umma maa ngi beesalaat loolu di ko ziyaara di ziyaara mboolem doomu cheikh a imaamul akbar ak mboolem yi rakkam porte parole bu cheikh Mouhamadou Mahi waaye mboolem muqaddam yi àndoon ak bàyyi kilifa yu mag yooyu yu tedd yooyu njabooti cheikh Serigne Mbaye Niass gannaaw bu ma waxee sëriñ Aliou Cissé njabooti cheikh euh, Ibra Fall cheikh Oumar Touré njabooti sëriñ Ousmane Ndiaye. waaye njabootu Baye ma Abdou Niang njaboot yi ñu àndoon ak Baye ñi ma ci teewlu ñi ma teewluwut ba ci Cheikh Hassan Dem mi nga xam ne ci ñi mujjee ñëw la bokk ñëpp ba ci Cheikh Kabir fay ñëpp maa ngi nga xam ne moom moo yàgg naag Baye ba London maa ngi oo ñëpp góor a jigéen ma gënaw ci biir réew ak bitim réew journée bi nag journée internationale la la Mawlaana Cheikh Ibrahima waxoon ne feesu leen néeg bi waaye bés dana ñëw da ngeen dajaat dina xamuñ mënuñ de te àggewuñu fa bàyyi waaye nag yàlla dafa wax ne alladina amanu wa tabaatum zuriyatum bi imaanin alxaq naa bihim zuriyatihim ñi nga xam ne gëm nañ gëm gu yées ngëmi bàyyi yàlla dañ leen yéegee ci seen maqaama bàyyeeg seen i maam donte ñoom àgguñ te ci ñoom te leen wàññi dara. programme bi nag ñu ngi ci biir quartier yi xam naa ne daal li am solo mooy ne ngoon ngi 17h ci la jotaay bi di mise en place bëgg nañ incha allah 18h fu mu jotee dana fekk jotaay bi war na commencé commencé ci jàngal Alxuraan. commencé ci tuddu yalla commencé ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa waye commencé ci conférence bo xam def moy cheikh ahmed bukari ñang domi sayda raqiya cheikh ibrahim Aladi omar roqi ñang mu koy ndaw lu bax lu am xam-xam lu am yar bu xam ni ko am ittile ci gestu mu wara a waxtaan ci moolana cheikh ibrahim ñas taxawayam ci jamm cheikh ibrahim garant de la paix et acteur intégration africaine Cheikh Ibrahima Niass lim taxaw ci jàmm bu mu dox ci àddina ci biir réew ak bitim réew Cheikh Ibrahima Niass lu mu joué ak dox ci unité africaine nga xam ne fii la faydu bi tàkkee naari ñëw awsey ñëw ñu nekk di ñëw Cheikh Ibrahima moomu solution la ci zahir waaye solution la ci baatin képp kuy mu xaddami baay foo mën a nekk ndax su ma mënoon daj ñëpp ku ne ma war dugg sa kër dinaa ko def su ma mënoon taalib bu nekk ma saafowante yow oo la seet si la ne ci bés bi ko def kon nag ñëpp xam ne ku ma agsi ci yow wala oowuma la ah bul ma ko jàppee maa ngi koy wax ci turi pays bi yëpp di oo ñëpp di oo Sénégal yëpp di oo autorité yi di oo defkati yu baax yi ci bés bi di oo dëkkandoor yi di oo taalibe yi mashariq al ardi wa magharibaha lii moo doon kàddu yi nga xam ne moom lañ doon yëkkati di gërëm média fayda bi nga xam ne ñoo ñuy taxaw ci jàllale ko askan wi jot ci ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp di wax ne incha allahu taala yàlla nañ ci àgg ak jàmm yàlla may ñu tawfiq may ñu dem yàlla nañu yàlla yàgg may tawfiq ay ati ati at ñu ci am tawfik diko taxawé ci na yàlla gëreme ñi ngi gëreem ñëpp di ñaanal ñëpp di sant ñëpp di gëreem Cheikh Ibrahima sant ba nga alhamdulilah shukrillah la ilaha illallah allah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa akhiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin amin رسول إله العالمين تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى قديمك نادى يا رسول فلا أرى فقيرا إلى غير الإله تعالى